waxoon naa leen fii ne leen gis ngeen sonk lii am nii ñu ci bari nag a ñi ngi ak Sonko xamuñu lu tax sonk a vécu sonk a vu a compris boo gisee sonk bu mu génnee ñu ci bari avant Sonko di tëju ci kaso bi ñu koy tëj ñu ci bari dañoo àndoon ak moom ba bu muy génn ñu ci bari ñëwatuñu annoncé woon naa ko fi nag bokk na ci Déthié Fall ñu ci bari jaaxle woon man leen est-ce que xam ngeen ni Déthié Fall wax na am na ojo bu mu wax ba saaga Sonko waaw ah, loolu maa ko waxoon waa Pastef ñu ci bëri jaxle nan non moo laa ngi jaxase moo laa ngi nangam mais xamuñu lu xew c'est normal duma ci jàppal kenn dara parce que information bi may am amuñu ko donc ñoom lu ñu mën rek moom mooy ah fen noo waxul dëgg mi ngi jaxase non loolu lañ mën parce que da ngay leen di comprendre dangay xam ni fi nga taxaw taxawuñ fa fi nga taxaw taxawuñ fa donc doo leen def yi nawle doo leen xulóog ñoom doo leen mere da ngay jàpp rek ni idée bi nga am moom mooy fi nga taxaw taxawuñ fa position bi nga am possibilité yi nga am information yi ngay am xaaj xaajaat amuñu ko donc boo leen di wax dañuy jaaxle boo leen di wax dañuy paniquer boo leen di wax dañuy tiit boo leen di wax dañu foog da ngay jaxase fekk li nga xam xamuñu ko information bi ngay jot jotuñu ko mais ko ci boppam mu ngi koy jot xam na ko donc Sonko bu muy dugg kaso ñaar ñii ñu ko toppoon ñu ci bari dem am na yoo xam ne mun naa leen ko wax am na yoo xam ne moom mënuguma leen ko wax gis naa coow li bon am na lu wax nangam nangam Sonko ñëw fi nangam nag loolu ñun xam nañ lan moo tax mais bëgguñu dugg foofu mais xam nañ lan moo tax lii demee nii mais mun naa leen yemal ci Déthié Fall bi nga xam waxoon naa leen ko ne Sonko a découvert que ak ki nga xam ni moom mooy Euh, euh, Khalifa Sall dañoo saboté euh, Sonko ci kaw buggoon Macky Sonko am immunité parlementaire ñu tay ko pour une première fois dans l'histoire ñom ñëpp xam une liste xam nañ lan fait une liste. xam nañ kon liste. ba paré ba paré trois fois won nañ leen pour ñu changer une liste ñu saboté ko saboté ba Sonko

pour ñu xam ni kon ñoom ñoo ko tayuñu ko mais duñu sabote seen bos ça montre ko ñoo ko tayoon def seeni manipulation pour ñenn dañuy jaay Sonko mu mu mu mu mu yàqu loolu yëpp ñu ñëw wax leen ko Sonko man leen Khalifa kii nii di Déthié Fall na Sonko nday toog fenn di jëw ñu gëmuñu nday Sonko la wax ñun gëmuñu nday Sonko ab nit enregistré ko ñëw ba ci kasso bi wax ko sonko nako ki <laughs> neena yow gëmul san nangam tan day sonko yeug loolu est ce que bu sonko genné kasso bi ba légui gis ngeen sonko ak ak ki nga xamni ni moy euh Déthié fa est ce que boobu sonko genné kasso ba légui gis ngeen sonko ak Déthié donc xeyna na wax dara di ci ñëwaat mais man chaque jour yalla daf may may deug sama combat chaque jour yalla daf may may qui ci sama combat parce que dama ko maîtriser nak xoma combat bu maîtriser mais bi ni ku ma ci fekk ma duma la dama ko maîtriser téye loxo te waxal marche bu pour wax ak man jaar na ci Ousmane Tunkara. Ousmane Tunkara wo ma ne ma dama bëgg a ne na bëgg na ma bi ne bëgguma wax ak il a insulté Sonko bëgguma wax ak mom

tey jii gis ngeen dëcce ànd ak ki nga xam ne mooy xalifa Sall ñu dem ànd ak waa PS waa PDS ña nga noonu dajaloo ne dañuy xeexi Sonko ak Jomaay donc lii lépp waxi démb la waxi démb yuy leer nañ ñi waxi démb la kon lii yëpp lu koy firnde mooy dil bu ñu def Sonko pour Sonko mun a libre du am immunité parlementaire Macky Sall moxoñe ko dóor ci kaso bi léegi nag am na ñaar am na ñu teel a daw dañoo dugal Sonko rek ñu daw commencé jëw Sonko bokk na ci Déthié Fall xas Sonko saaga Sonko ñooyu Sonko jot na information yépp am ñoo xam ne xam lañ leen doon xaar bu ñu nee tëll ñu tëj Sonko ñuy wax waxu élection ñoom dañ doon xaar ñu ne voté leen ñoom far Sonko ne jomaay ñu commencé diaboliser jomaay parce que ñoom dañ doon xaar ni bu amee bu ñoom dañ leen gëmloo déjà ni Pastef du dem ñom ñëpp paré ne Pastef du dem ci seen xel donc comme Pastef ñom nous nañ ne du dem Macky Sall wax na leen ko ñu ne kon ñom Sonko ñom lay yenn parti taxaw lex di xaar Sonko né voté leen kon ki malheureusement Sonko joxuñu leen ñu mer ci ñi génn sax di diaboliser Jomaay pas way Jomaay matul président parce que ñom lañ bëggoon ñu malheureusement cassette génn wane ni du kenn ci ñoom jomaay la ñenn deuxième couche bi daw deuxième couche bi foofu lañ dawee dafa am première couche boo xam ne dañoo tëj Sonko rek ñu génn di ko yàq Sonko yëg loolu am ñu fa des di xaar ñu joxoñ leen Sonko joxuñu leen ñu dem di diaboliser ki nga xam ne mooy candidat wu Sonko loolu lépp mooy deuxième bi nga deuxième ñu fa desoon ñëpp daw ñëpp seey donc noonu lañu ñu dem sen yoon moy ñu doon togo Sonko wër Sonko di tay ñom lañu gis gis ngeen sen photo yi ñom lo gis ñom ñom ñu coalition daw euh, euh, euh, association des malfaiteurs alliance contre nature yu dajalo ñom di rek ne bañ ñi ñi gis ño doon wër Sonko Sonko toog gauche droite bu Sonko ne waaw ñu di ray <laughs> c'est sen intérêt légui nak Sonko heureusement il a les informations fi kenn du fi jëw Sonko de Sonko Ken du fi def ay ay manipulation te Sonko yogul ken du fi ñew commencer nan lañuy def pour paqueter Sonko éliminer ko te Sonko ñewul wax ji moy bëri rek mais Sonko est très très très très très informé très très informé wax ji amna na bëri na ay wax yo xamni man sama bopp des fois bëgguma di wax mais buma leen waxon ben signe lu waral tay Sonko dem fi demul fi rek billahi ben ben ben buy firnde lan moo tax Sonko dem fii demul fi lépp nag barke lesi laa ilaha illa xam naa ko benn rek bu ma ko joxe woon dëkk bi yëpp noppi waaye day comme niñ ma ko waxee rek dama leen bàyyi leen ko dina mun na gérer yëfam Sonko mun na gérer yëfam fu mu bugg dem kenn mënul fexe ba mu dem fa parce que li am ci information ak li mu xam ak plan yi ko tëral ak nuñ ko jéem a décrédibiliser lépp nag ci kaso bi la xewe lépp ci kaso lépp ci kaso bi la xewe xeetu décrédibilisation bu ne jéem nañ ko décrédibiliser Sonko bu mu nekkee ci kaso bi lépp la doon yëg nag il a tous les euh, euh, euh, toutes les informations réunies moo tax mu ne tekk ne salaw

ku ne di wax ku ne di tàlleeku ku ne yàlla yabal yonent ne sal benn yonent ne demal fee neel gaay bu ne yàlla nee na ñëpp bàyyi gaa mbamb vum vum vum jóge fu ne ndiraan bi di daw gaa di dajji bunt yi di ñëw ñëpp <laughs> yonent ba génnagul de coow la riir na nag caga jaa ngay laalante góor jigéen yaa ngay ñappaaxonte gaa yaa ngi cangalante ne ay xaj gaa yaa ngi yuuxu coow la génnagul day génnagul day bu ne vum ba taxaw ba ne bismillah kenn dootul taxaw seen papa yi dinañ fëll di génn ñii ngay gis nii seen baay di daw seen ndey yi di daw di fëlaate xale yi di naaw ñu ne yonentu ba ñëw na te réew mi ne salaw teguwaat ci yoon fu ne ni mi ngi ne tekk di leen déglu bés bu ne bismillah nga xam ne nag <laughs> noddu nañ jullee fi des jàkka ji doon na jullee fa des fu nekk nii na comme julli commence gul fu ne nii ñëpp a nga ñëw wax de mi ngi bëri ku nekk a ngi wax mais imaam ba ñëwagul nañ ne yu mboot bu xumbee allaaji kàkkatar a julli seegul jàkkoy mbóot bu xumbee allaaji kàkkatar moo julli seegul kon allaaji kàkka kon mboot yaa ngi fi di xumb xumbulu aka day partout ah allaaji kàkkatar génnagul day bu génnee rek mbóot yi na salaw tey dans la discipline yarab teggin mu wax ne fii la ñëpp topp loolu nag yàggul dara fu ne ni coow li bëri na wax ji bëri na association contre nature yu bëri na alliance de góor góor jigéen yéeg biir buy daw buur tàññe beeg dëmm yéeg nooxoo yi booloog loolu lépp dara buur génn génnagut bu génnee rek bare benn borom baat ba buy génn di wax ñëpp topp ci ñoom seen baay yi sax di leen gis ñu topp ci seen ndey yi leen jur sax dina ci topp seen maam sax dina ci topp dina am ñu àbb seen maam yi àbb bant sax di daw pour dem déglu ji Sonko ak wuyu ji Sonko kon nag jàkkee mbootu xumb alaaji kàkkatar julli seegul mais bu julli see rek mu leer waaye daal li ma leen di wax moom mooy ñii nii dajaloo fii Sonko ñoom ñëpp la xam ñoom ñëpp ñii waxal nañ ko lu bon ñii saaga nañ ko ñii jëw nañ ko ñii comploté nañ ko ñoom ñoo dajaloo nii ñoo dajaloo nii day ñoo dajaloo nii day ku ne ña ngay fexe di dajaloo rek fu ne di dajaloo de ñi ngay def lu ne waaye jàkkee mbut bu xumbee alaaji kàkkatara julli seegul donc ñun nga xam ni bàyyi nañ ñu fi lu suñuy wareef moom mooy éveiller la population réveiller leen indiwaat engouement boobu noonu waajal xërtal booy yi waajal leen ni ah waajaa ngay ñëw donc bu fekkee ni julli ki jotagul dafa am ñoo xam ni rek comme oustaz baa ngay ñëw ku ka jiite jàkka jaa ngay ñëw il faut ñun ñu wax leen wa defaru leen toogaay defaru leen toogaay defaru leen toogaay bisimilah bisimilah donc ñun fu mu ne ni ci loolu lañ nekk defaru leen toogaay taxawaat leen jëmmal leen seen bopp xërtal leen préparé leen ah <laughs> buur a ñëw buur ñëw te boo benn benn baat la benn bu ko waxee rek kenn du ci tegaat kenn du ko ci tegaat kenn amul kenn ku ko ci tegaat donc ma ngay ñëw waajal leen taxaw leen takku leen ba mu dëgër te defaraat leen toogaay yi incha allah ma ngay waajal ñëw voilà ñun loolu mooy suñu wareef xamal leen enjeu yii di ñëw xamal leen euh, euh, éveiller leen conscience yi indiwaat engouement bi euh, éveiller indi conseil yi ñu occuper média bi wax borom projet bi panafricain ma ngay waaj a ñëw te dinañ leen wax lu fen-fen teel a xëy dëgg bi danti weesu ko balaa ngoon lu fen-fen teel a xëy dëgg dina biddanti weesu ko balaa ngoon loolu moom jàpp leen ko fen yi bëri na coow li bëri na waaye dëgg a ngi ñëw day ma nga ca yoon ba day bàyyi fen jiitu ko ay kilomètre fen day xëy dëgg biddanti weesu ko romb ko di wey donc dëgg ngay ca yoon ba di ñëw jóg leen taxaw jóg leen waajal seen bopp dëgg ngay ñëw te bu ñëwee boo leen ko déggee xam ne lii dëgg la ay fen la donc fu ne nii ñii xërëm yi xërëmkat yaa ngi nii ñoo nekk nii dajaloo nii gëmuñu dara amuñu gëm-gëm amuñu valeur amuñu dignité amuñu moral amuñu éthique ay caga ay politiciens lañ xaj kuti mbëmbow caga bordel dama ne buur a ngay ñëw ka yàlla yabale ka yàlla boolee muy Ousmane Sonko ma ngay ñëw ma ngay ñëw day ma ngay ñëw ma ngay jóg day ma ngay ñëw waajal leen seen bopp bu mu leen fekkee nu nu muy rusee bu leen fekkee nu mu leen di xeebee toog leen defaru leen defar leen toogaay bu leen fekkee nu mu leen nu ngeen di rusee ci kanamam

ba ñu xam kan kan mooy kan ñu tulli seen maam ca xaj noonu lañ leen def ci élection présidentielle yi yulli wulli wulli seen maam ba ñu ne eh, ñu tulli seen maam kon nag la yulli wulli tulli moom yéen xam ngeen ko incha allah avec avec yi ñuy waajal ni échéance électorale yi la yulli yulli seen poos yi ndax seen alal lañ sàcc ñu wulli leen ci bureau de vote yi bañ nekk nit ñu tulli seen maam ca xaj c'est donc nag mi ngi mi ngi waaj a ñëw nañu waajal suñu bopp ñii ñëpp nag ay dañu amuser la galerie dañu amuser la galerie xaw ma ñëw xamul soo ko waxam bëriwul de nit yi nag mën nañ fi nekk ku ko nekk di ko wutal ay lay ku ko nangam mais dama ne ku fi def yëfu dëmm soo ko xam na la ku fi def yëfu dëmm soo ko xam na la ku ci dox doxinu dëmm soo ko xam na la loolu moo tax mu génn ci coalition ne moom day dem Pastef te loolu la loolu noonu la parti de demee parti da ngay ñëw dëmmal sa jëmmal sa bopp Pastef am na foo fu mu toll foo xam ne soxlawul benn coalition parce que coalition ay fenkat nga fa ay dëmbang fa ay biir bi dawam fa ay sàcca fa da ngay ñëw jëm jëmmal sa bopp loo am jël te incha allah noonu la Pastef di ravager trajectoire bi yëpp dama ne assemblée nationale 165 députés nu mu dee dee ci kaw ba jëm ci suuf yëpp Pastef lay doon incha allah loolu moom mi nii sama kanam may jàkkaarloo mi ngi nii mi ngi nii fees tepp fépp moom fu ma ko foo lamb Pastef la ñuy wax dama ne assemblée nationale bii ma leen di wax nii ci kaw la tàmbalee gaa yi ngi nii ci kaw di wàcc ba ci suuf wàcc ba ci suuf lii lépp Pastef la lépp li gis nii lépp Pastef la loolu moom leer na ma naññ naññ naññ jarul coow lu bëri yéen daal concentré wu leen ne waajaa ngay ñëw te bu waxee benn yoon la mooy buur ci benn baat ba bu waxee dootul waxaat <laughs> balaa balaa waxaat ñeenti at yéen xam ngeen nu mu demee kon nag ñu waajal suñu bopp